raay bi jumaay Touba buñ ko defaree feer biñ ko defaree fii la jaar fii patrimoine la ci dëkk bi suuf si dafa am solo ci dëkk bi tey bu doon lu ñuy siyaare ñëpp war nañ koo siyaare ndax maam Seera Fall la ñu santoon liggéey bi mu ànd ko Baye Fall gas ko tey bi fi sëñ bi bëggaatee dara Baye Fall la woowaat ñun nag noppi nañoo ndigal la ñuy xaar ci sëñ bi feeg mu ñuy jox ndigal ñuy jëfe ndigal li lii dañ koy yàkkamti woon lool feneen fu dul fii ci biir Touba su fa joxee ñëpp dinañ jóg ndax ku jébbale sa bakkan moomatoo sa bopp aslamtu nafsi bi rabbil alamina jox naa la sama bakkan àdduna ak alaxira la ñu wax sëriñ bi kon bu ñu naxanteeg moom bu ñu naxanteeg moom dañ ko jox suñu bakkan moom sëriñ bi ku ci faatu alaxira a nga jëm directement lii la maam seera faal ne woon seen pënd baa nga wuri ba aras tey pënd bii moo loola la may fàttali pënd ba ca njaareem la may fàttali ndax liggéey bu ñu jox maam seeraay ma faal baay faal bu ci ñëw ak ku ci teew barkeelu fa randal fa wenn doj xamal ne loola Cheikh Ibra Fall nga ko defal murit nag bu jekkoo ndigal wàcc na yàlla nañ jekk ndigal li waaye raay bii daal nañu xam ne jumaa ji tax ñëpp di fi ñëw te sëriñ bi ne ci biir raay baa ngi nii fii lañ jaarale feer bi sëñ Modou Moustapha moo ko dox ah njëkk caa def alal ñu njuuj njàcca mu wutaat alal def ci ba tey jumaay Touba taxaw ñëpp di fi ñëw di siyaare nit ñi nañuy xam lan mooy patrimoine gaar bi patrimoine la lii patrimoine la patrimoine kenn du ko toj kenn du ko jaay kenn jaayu fi kenn xanaa nit ñañ ko mayoon ñoom ñooy mujj di jaay seeni kër ñooñu di ko def ay kanting dëkk bi nag ginnaaw dafa am ay nañu déglu borom dëkk bi lu ñu borom dëkk bi wax loolu la ñuy def ku ñëw ci dëkk nag da ngay nangoo déggal borom dëkk ba waaye ñun kenn mënuñoo xëcc ci wenn wet ndigalu sëñ bi moo ñu fi bàyyi su ne woon léegi géej gi la géej gi la ñu naan ko danañ ci naan naan naan ba boo ñëwee da nga naan ana Baye Fall si jaarale géej gi. waaw waaw léegi Baye Fall mu mel ni yoonu murit nag dafa commencé woon dem ay débordement Baye Fall yi mel ni ñu ne tekk daal te jotuñu woon ndigal xëy na alors débordement yooyu di am euh, xam naa moom faa ngeen jot ndigal ngeen jotee ndigal taxawaay bi dina gën a yaatu. dëgg la xam ndigal caabi la soppee du ubbi soagul du bi see yàq see liir bi moo tax baay Fall danaan tekk ba jot ndigal nelawuñ de dañuy déglu ndigal rek. buñ jógee fii ñibbi wuñ de xel kom la ñu jëm na nit ñi xam loolu buñ jógee fii dañuy dem xel kom Serigne Bamba aslamtu nafsi lañ ko wax jox nañ la sinu bakkan kon moomuñu li ci suñuy poos moomuñu sinu njaboot moomuñu sinu bopp Serigne bi moo ñu moom koo yaakaar àllaaxira yaakaar ko àdduna su la sante nga war koo jëfal waaye nañu xam lan mooy solos Touba ndax Touba bi fi Serigne bi di dëkk kenn fekk ko fi woon moom dong fi nekkoon mu dib àll ay gaynde fi nekkoon ak i till ak i njaay àll ki mëfër sëriñ bi dàq leen ñu dem mu dëkk fi sanc fi bëggee ni fi dem sanc Mbàkke Baari Jolof 1895 bëggeen liggéey liggéeyam bu mag bi liggéey ko juróom-ñaari at ñëw dénk teer njaboot gi ceer joxaat ko njaboot gi nam ko ko dénke woon mu ne ko man Cheikh Anta wàcc naa waat naa wàcc naa wàccaale naa leen dama ne képp man ak képp ku ma yaakaar tey jii dogul naa la àllaaxira ajjana la fa dogal kon loola sëriñ bi moo ñu ko manal nit nag su la mënalee loo mënul sa bopp da koy xam bu ñu naxanteek sëriñ bi. fi defoon ba léegi teg ci feer bi ñu liggéey jumaay Touba su fi raay bi nekkuloon danañ taxawal jumaa ji lu taxoon sëñ Modou Moustapha nangu ko ba ne woon de liggéey bi de suñu xamoon lim ma jaral su jaree solu quartier sax danaa solu quartier dem armée ndax raay bi taxaw fi kon tey bu kenn yàq fii nañ ko defar fii kenn yàqulewu fi. kuñ fi tojal tey rek dañ la fee defaral ndax xëy na liñ la fi bàyyiloon moo doon yàq ñu dindi ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kenn xiifu fi kenn maru fi sant nañu Serigne Touba bu baax yëguñu coono xiifuñu sonnuñu jox nañ suñu lépp Serigne Touba ñu ngi leen di siyaar yéen ñi fi ñëwit di ñu filmer lépp lu ngeen. wi naka la tur wi naka la. tur wi Baye Fall la buy Baye Fall Pape Niass di ànd ak Soxna Khady Fall moom Baye am di Modou mbenn Fall di xit bokk ci xidmatul Lamp Fall. ak ñi fi ñeneen ñi ñëw ñëpp ku ne jëfa indi waaye daal li wérte wóor mooy nañu xam ne sëriñ bi ba muy wéet ak boroomam ñu génne ko réew mi ñëpp a demoon seen i kër ñëpp a demoon seen i kër ñu jàpp ko yóbbu ko yóbbu ko ndar jële ko ndar dugal ko ci saxaar yóbbu ko ndakaaru exilé ko génne ko réew mi mook Samba Lawbe ci ay wax yoo xam ne ay waxi kàcc la yoo xam ne dañ ko naroon waaye na booba sëriñ bi moo dige woon liggéeyal boroomam xandeer bu demee ci waar wàcc na sëriñ bi bi mu fi nekkee di liggéey kenn fekk ko fi Fall Touba léegi la leer rek waaye mag ñi daanañ màggal takkusaan balaa 6 ku nekk jalaat say xamee dem ñibbi tey nag dëkk bi neex na lamp yi ñëw na kur ndox mi ñëw na ndox mi neex na fu neex tëdd lu la neex wax xéewal bari na waaye bu kenn fàtte ne Serigne Touba la joxoon xéewal bari na ñu ñëw fii ñoo xamante nii tey jii liñ leen tojal bari dara jey maam Seeraay ma Fall fii rek lañ ko taqalee woon ay place la ñu jëndoon ba tabax seen i tey nañu waxtaan xam nga luy waxtaan bi sëriñ bi yàqalul kenn yàqalul kenn xalifa bi yàqalul kenn sëñ Bas yàqalul kenn am di yàqalul kenn dañuy defar yàlla nag buy defar lu ñu wax day mel ni ku yàq mooy lii tey buñ fi paree. ku fi jaaree te xam ne Touba nii la méritool waaye am ci yeneen réew yi buñ ko dugal Touba de Touba dara xajuf xam nga lu fi xaj murit akuk taalibe moo fi nekk te ci loolu la ñuy faatu murit akuk taalibe point bar amatul leneen sëñ bi daal bu joxee ndigal bu soobe Serigne Touba leneen lu dul lii ndigal lañ ciy xaar ñi ngi gërëm ñëpp nag di sant Modou Diop Diawbe ku gërëmul Modou Diop Diawbe da ngaa naafiq bakkanam la jaay ci dëkk bi ngir liggéeyal ko seriñ bi. dañ koy déglu ci téléphone yi di ko seetaan ci télé yi lu ne mi ngi koy dégg waaye na muñ kuy liggéeyal sëñ Touba doo gestu doo déglu yow xamal ki nga ki nga amal affaire rek te ñun xam nañu ki ñu amal affaire yàlla nañu sëriñ bi dooleel dimbali kàttanal ñu ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall